jërëjëf mbokk yi yéen ànd ak seen télévision régionale Prestige ak euh, YouTube bi www.thiesprestige.com mbokk yi di wax ni dixième édition foire Reit box bu ne taxaw nan fa nag ngeen gis xar gis volaille gis lu nekk waaye mbokk yi damay wax ni lépp loo gis rek daam lu ko waral box bu ma dem nag dama fay fekk bu njëkkoon dama fay fekk ngooñ wala mu fekk fa mbopp fekk fa repas ak yéen ñoom seen waaye at mii dama ñëw dugg si di gis beneen xeetu lekkin woo xam ni ci la xar yi gën a xër di ci noos carrément di ci lekk te man xaw ma lu mu doon ma laaj ñu ne ma lii mooy lan. luzerne ah luzerne na luzerne nag comme que man sekk daan xaw ma ko man kaw kaw bu toll li man yéen it xam naa ñu bari duñ ko xam waaye waa luzerne toog nii muy genre ngooñ moo xam ne moom la xarit di lekk moo nekk nii xaw ma produit local la xaw ma lu mu doon. waaye xam naa ne neex na ndax xare yenn saa yi bu ñu ci lekk ba ci yàgg sax génn seen làmmiñ di taxamte ko ma xam ni kon am n lu muy saf waaye la muy saf naka ko ma ca ko xam xar mun ta wax waaye ki koy toog ki koy defaree ngi toog sama waaj maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay ziar bu baax Seck di nuyu ñëpp di sant ñëpp maa ngi tudd El Hadj Omar ñu gën maa xamee si Omar donc di yëngu si activités yi ñuy xamee élevage agriculture donc ñu indi nag fii si dixième édition wu Réet si su l' invitation de l' ñu indi benn produit bu bees bu ñu naan luzerne. Luzerne c'est un c'est une herbe fourragère boo xam ne ñu ko commencé bay fii Sénégal donc il y a à peu près deux ans donc mu nekk loo xam du résidu alimentaire donc comme ngooñ lañ xamone ngooñ nekk loo xam ne ci lay juggé si guerre duñ ne ngooñ amul ferñeent parce que ñun mom lañ xamone muy rafetal suñu xari machallah té dañ koy jaay donc c'est un produit bo xamné il est toujours sur le marché mais tay amna produit bo xamné produit fini la lo xamné du résidu parce que ngooñ xam nañ ne gerte gi mooy jël lu mu substance mu soxla yeneen yi mu jox ko tige yi ak bi mais bii luzerne c'est spécialement pour pour les bétails dañ ko saxal uniquement pour xar yi. amul doom kenn du ci deqi kenn du ci bàcc am kenn du ci def dara. kenn du ci def dara moom dañ ko defar uniquement pour xar yi mu nekk nag garab goo xam ne dafa riche en protéines ak en fibres donc xar yi bu ñu koy lekk day indi avantage bu bëri si ñoom muy xar yi muy nag yi muy yi. donc nek na lo ay donc même ba si lactation wu mala yi koy def si comme comme production laitière mo doole si mom la gëna donc sel temps jamono yi ñu jël at bi ñu nek 2023 at fin 2022 bi éleveurs yi koy découvrir ñoo koy gëna té ñun en tant que chef d'entreprise, parce que créé nañ entreprise bu Zoom agro business di yëngu élevage en général. non ba la ñoo ñëw ci fu ngeen ko xamee ba créé ko ba mu ñëw lan la. waaw ñun moom peut-être ñu nekk ndaw dañ naan gëstu parce que bëgg élevage moo tax. Hmm. dañ naan gëstu si réseaux sociaux yi di gis luzerne di gis trèfle di gis plantin mu yooyu herbes fourragères yoo xam ne ku ko amoon yooyu yëpp complément yooyu yëpp doo joxe granulé muy muy minoterie yi ñuy defar parce que lépp lu xar soxla mu ngi si ay mu ngi si garab gàncax. donc ga maanaam ñu naan suivre ay documents ñu documentation ñu xam ne lii di luzerne lii di planté lii di trèfle ku ko boole doo joxe aliment donc si noonu lañ jugee ba xam luzerne di koy def ay recherche si moom ba commencé woon amoon ay grands yu nekk extérieur ñu koy importer ñu koy jaay donc si noonu lañ commencé ba gars yi ko fi am ay entreprise yu taxaw yu am doole macha allah commencé di koy bay Richard tool donc am ay hectares des milliers d'hectares commencé koo bay ñu commencé koo commercialiser fii ba ñëw ba mu egsi fii Thiès. waaw ah, luzerne maanaam actuellement ñu ngi koy bay fii ci réew mi. waaw actuellement ñu ngi koy bay Richard tool te pas mal d'éleveurs ñu ngi koy essayé seen tool nekk na loo xam ne naqariwul saxal donc naqariwul saxal ku nekk sa kër sax pour te pour autosuffisance en mouton bu ñuy xeex ñun ñëpp donc ku am benn 300 mètres carrés wala 500 mën nga ko see def. ba di nga mën a am sax benn six tonnes par par par par par par par deux ans wala par dara nga xam dina la mën a am sa autosuffisance en en aliment. mais luzerne tey boo koy ji gerte sax buñ koy ji mën na da ngay suul doom bi. luzerne boo koy ji nooy def. waaw luzerne moom boo koy ji bu suuf boo laboree suuf si ba suuf si baax moom kiwam du jiwam du du sori da nga koy sànni nii rek. lan lay doon. waa ay ay grain lay doon semence bi ñu ngi koy jaay le kilo à dix mille. donc ñun amuñu ko mais on a des des partenaires yo xamné ne am nañ ko donc képp bép client bu bëgg rek ñun dañ lay bolé ak ñom mettre en relation ak ñom ñu jaay la kii bi wan la ak des vidéos d'accompagnement ba nga xamné bokay boo ji du metti ndax jur gi mën nañ leena bolé boole leen ngooñ ci suba gi ngoon gi nga sotal légère na wala nga bolé lu ñom ñaar ñep am bu ko bu dee lekk benn bi amu droit lek bi ci dess waaw ñom mom parce que aliment yépp la c'est complémentaire luzerne bi mën nga ko joxé à volonté mën nga joxé luzerne at. ak ak ngooñ am ñoo xam ne dañuy jël man des fois je damay jël luzerne ak ngooñ jaxase ko yenn saa yi ma jël luzerne kese jox xari parce que ça dépend objectif bu nit ki am ça dépend objectif bu nit ki am mais luzerne moom 90 pour cent si éleveurs yi nangu nañ ne nekk na loo xam ne solution la pour pour rétablir élevage bu baax a baax a baax. bala maa ñëw sama waa ji bu fekkee ngooñ la da gis euh, xar yi mën nañ koo wóoy.

di nuyu ñëpp di nuyu sama patron Omar Diop. Mm-hmm. waaw damay ñëw si question bi nga ko mujjee laajee comme ba xam. Mm-hmm. déchet ngooñ bi ak luzerne bi. Mm-hmm. soo xoolee luzerne bi moom amul déchet zéro déchet la. te ngooñ bi maanaam démb rek am na si waa ji ma koy laaj nee na moom mu may wax nee na moom kiwam bi ñax mi. nee na bu joxee ngooñ bi ba si yàgg après bu ñëwee si mangeoire bi day gis ni day bari suuf. day bari suuf te bu yooyu day sëkkatloo xar yi di leen di leen sojloo daal. léegi mu ne ma si lizard ma ne ko man de si li ma xam moom bu ñu yàq deru ngooñ nag ngooñ ngoñ a fi newoon lizard bi ñëw nak ak dooleem nag nangu nan ko ñun ñun avant ngooñ bi lan xam ngooñ dañuy jaay ngooñ di jaay luzerne te ma wax la si si protéine ngooñ bi 6 pour cent la ak protéine luzerne bi 17 pour cent la kon ñaar yooyu mënuñu bokk yam soo xoolee ñaar yooyu mënuñu bokk yam moo taxit nag man du ma ne ngooñ baaxul mais tamit boo gisee la fa gën nag da nga koy jël ndax soo xoolee xari bu ñuy lekk luzerne mm-hmm. au fur et à ñu dem soo xoolee un mois suñ ko lekkee da ngay gis seen karaw bu dee bi da ngay gis day wàcc xar mm-hmm. bi day liis mm-hmm. xar bi day nekk si forme te boo koy jox xar maanaam ripaas bi li ngay jox si xontu da nga koy cofal lekk li si des yëpp luzerne bi xëy mottali bi nekk ci repas beeg lépp mi ngi dajaloo ci luzerne mi bi moo tax xar bi bu koy lekk da gis ni day maanaam ngooñ li nga koy jox daal si aliment tuuti lay doon te yemul kase si xar de nag yi dañ koy lekk fas yi dañ koy lekk ba ci ba ci ba ci bëy yeeg ginaar yeeg lépp lépp dañ koy lekk xam nga démb damaa gis euh, le responsable ki nga xamante si ni moo fi ñëwal le ministre de l'élevage ñuy Ousmane Mbaye di suñu mag ñu ngi koy nuyu di passage damaa gis mu romb box yu bari waaye bu njëkkee ba ca légerne bi dafa dugg fii ci biir jël ci ngooñ ma tàllal ko waxtaan ak yéen ba pare daal di koy daal koy présenté le ministre euh, euh, kii le monsieur le maire ba pare présenté ko ministre Pape Abdoulaye kii Ndiaye. loolu dalay wan ni kon lézard na gaa ñi commencé nañ koo xam ci réew mi. gaa yi ñu ngi koy commencé xam ndax soo xoolee gaa yi ñu fi ñëw fii xam nga foire moom fii réet bi fii ñëpp a daje. soo xoolee da ngay gis nit ñëw ne ma ba xam luzerne bi yow di nga ma ko mën ma ne ko foo nekk si Sénégal ñu mën na la livrer luzerne. te ñu si dañ may demander question bi ni naan ba xam luzerne day nekk en rupture. non non ma leen luzerne bi mënut a nekk en rupture ndax soo xoolee nii nii ñi ngi doon ñi ngi nekk si noor. te dañ koy bay si noor. kon waxuma laa kon nawet bu ñëwee day gën a bari foofu sax yee nga sama xel baax naa dellu si yow donte émission bi dafa neex ci man quoi parce que dama ci am dama ci am xalaat bu bari yoo xam ne si nii euh, yaakaar naa réew mi tollugul foofu te réew ñaar yoo koy doxal bay ak ak càmm te càmm gi gis nga ko tey ñoo xewle mbay mi fekk si leen te bu fekkee luzerne bii tamit nanguwun ko dugaluñ ko ci réew mi di ko béyee ci réew mi loolu mën nañ cee créer sax emploi yu yoo xam ne kii mais li ma bëgg a laaj muy que ni bu fekkee tey jii luzerne bi tàmmal nañ ko sunu jur. ba jur gu miin ko miin ko miin ko ñu xëy xëy ay na yéwén dootu ñu gis légère na mbaa loolu bàyyi ngeen ci xel. waaw loolu moom peut-être nee képp kuy yëngu si activité rek amna lo loo xam ne def ay études parce que ñun certes ay ndaw lañ mais on envisage quelque chose de plus grand parce que certes ñun dañuy jaay luzerne amaguñu assez de fonds pour créer luzerne dikoy bay ba dikoy ki mais on est des partenaires et des actionnaires. tey am nañu ay parties ay ay nit ñoo xam ne ñoo ngi koy commencé bay ba suñu dërëm mën nañ ko faa dugal donc pour loolu bañ a am cest à que l'accompagnement de l'État mooy dox ba nga xam ne moom si boppam mooy jël ay suuf jox ko ay ndaw pour mu gën leen yombal loolu ba si ñun ñii di wax ak yow essant y a des concurrents yoo xam ne commencé nañ koo def te loolu mooy yombal liggéey loolu mooy gën a naatal produit loolu mooy mën a tax manquement du am parce que y a yoo xam ne dañuy ñëw ba si man sax ne def naa luzerne plus de visibilité la bëgg wala li kon donc loolu may wane ni nit ñi ñëw sénégalais ñu ngi siy gën a investir ñu ngi siy gën a xam ne lii nekk na loo xam ne mënutul ñàkk si élevage Sénégal hmm. kon daal yéen a ngi bàyyi xel ëllëg mu mën a saawaan baawaan ci rëbb kenn ku ci nekk rek boo nee ci xat rek yam ci luzerne saag bi mbaa la mësu leen ci jaan waaw saag bi la ñu ci jaan parce que réet moo ñu accompagné di si jaaree di nuyu le président Xarim Fall Olam ak Papi Dieye ñom ñoo ci accompagner parce que ñom ñoo yombal mbir bi. ñom leer na ma sax ñom mom toli li légèrement ay xalé yu nangoo liggéey te am tagu ci yoon. waaw waaw lool mom amna lu ñuy roy si ñoom lu bëri macha allah at si ñëpp sax mm-hmm. mais lépp loo mënti gis rek suñu ñëwoon fi ci ñom la mm-hmm. parce que suñu place lañ nekkon di jaay. Mm-hmm. macha allah ñu ngi si doon gis suñu bop ñu ñëw nañu indi len luzerne dem pour plus de visibilité et aussi pour tamit mu accessible ci ñom motax ba ñu set metti na mais dañ koy nangu. parce que dañ kenaan parce que am na ay conditions muy ñoom dañoo ne jarul muy gudd dañ ko dagg ba mu sew pour éleveurs yi mun see seen xar yi mun koo mun see lekk normal du tax seen mbaar moo tax ñun on a pris l'engagement sur ça di dagg bot yi wut ay nit teg leen foofu entreprise ba ñuy dagg. di koy def si ay saak di koy indi donc ñun pour bu doon dañ siy dañ ngeen ci marché bi parce que man box bu ma dugg Luzerne laa fekk waaw marché bi marché bi c'est pas c'est pas ñun investissement bu ñuy def instant yi nii c'est l'investissement humain parce que tey capital bu ñuy gagné nii mooy clientèle bi tay du ci xaliss bi parce que bu fekkone xaliss xaalis li ñu jiital jaayaan ko à l'extérieur à 5000 francs té duñ ko dag mo gëna économique ci ñun mais buñ ko daggé tu es obligé nga remplir sac ba mu ba mu ki ba paré yoon la nga def marketing pour client yi ñu découvrir affaire bi. ayca marketing da am yoon kontaan nañ ci yow jaajeuf mi ngi noonu mu nekk luzerne nekk euh, produit bo xamni dootuma ko tudde ngooñ waaye da ndurok mbop boko xolé bo bu tam nga tal ko waaye boko talé tal xaliss bu bari tal lu jur gi bëgg. muy luzerne bi man sax bis ni que tey ma ñam ci luzerne parce que yaakaar naa ne lii ku ko dëbboon ba mu mokk boo ci suyee sunguf sax mën na cee lekk saa waat ñu bàyyi la ngeen joxe joxe euh, bu ñu leen bëggee jot. waaw ñun ñu ngi dëkk Sofraco euh, boo jàddee si pharmacie Xaadim soo rek si lavage bi rek boo ñëwee foofu ku ñëw foofu di ñu fekk foofu.

donc euh, loolu dal moy entreprise bi donc ni ku soxla contact yi 77 la 618 42 57 wala 76 150 52 18 waaw loolu la woon daal. ayca mi ngi noonu mbokk yi légère na ngi noonu lii nag avant première la dañ dem ba ci entreprise ba toog ak ñoom déclenché suñu micro wan leen liggéey bi nan lay démé wan leen xalé yi nan leen composé wan leen tamit hygiène biñ ci def wan leen tamit ñu koy organiser woo ba bu accès ceew da ngay sotti rek jur gi jiiroo ko loolu di ngeen ko am sen télévision régionale Prestige. Euh, mbokk yi jërë ngeen jëf ñu dem ci benn